ci téere bi ki nga xam ne moom la ñu dénk lépp di jëm ci wàllu affaire juridique ca secrétariat bu euh, gouvernement ba daan na ci wax ci li jëm ci wàllu ay infraction penal responsabilité pénale waaye itam ay daan yi ñu ci prévoir. nu ñuy bu ñuy bind texte yi war nañoo fexe ba texte bi war a leer ba coow du ci am ba juge bi bu koy appliqué du am benn jafe-jafe loolu daal moom laa jublu woon ci. recommandation ak proposition yi nga xam ne def naa ko bi ma bindee lii. Papa Assane Touré daal nay def liggéey gu am solo ci wàllub évolution justice bu Sénégal ci biir ñaareelu téere bi sax daan na ci wax ay rëq-rëq yoo xam ne nee na war nañu ko jooyanti. lorsqu'une personne. bu ñuy topp nit ci mbirum recel de malfaiteur. ngir obliger juge d'instruction mu koy placer sous mandat de dépôt. ñu koy soppi topp ko ci jëm ci wàllub euh, association de malfaiteurs en rapport ak euh, mbirum terrorisme loolu dafay firnde rek ñu ngi koy topp ci leneen loo xam ne defu ko. c'est ça bi yemu ca ndax nag wax na itam ci ay yenn texte yoo xam ne dese naa leer te muy indi yenn saa yi ay coow lu bëri ci yenn décision yi ñuy dogal ci biir tribunaux yi. réforme yi bari na trop mais. livre boo xam ne dañ ko consacré ci droit pénal général ci Sénégal boobu ba léegi amul moo tax ma yaakaar ne war naa mën a euh, seetaat loolu. Papa Assane Touré nag bind na ay téere yu bëri daal nay occupé itam ay fonction yu bëri ci justice bu Sénégal waaye itam ci administration publique ba mu nekk ab Papa Assane dafay jàngale itam ci université ak institut yu nekk ci Sénégal ak ci Afrique.